yegg na yegg si nañu ci suñu rubrique royuwaay tey ñu fas yéene waxtaane borom daara ji ni ko Fatou Diouf euh, fay waxee euh, am fi invité bu am solo mu jugee ba ci Tiwaawan ñu fas yéene waxtaanee mag mu baax sëñ Mansour Sy boroom daara ji Fatou Diouf dama lay bàyyi nga wéyal ak sa invité. waaw ñu xuus euh, ci biir waxtaan bi dañuy dem fële ci régie xool portrait bi nga xamante ne Aïcha Diakhaté def na ko ci sëriñ Mansour Sy borom daara ji. من مال يمكن مراتب juróom-ñeenti fan ci weeru décembre ati 2012 juróom-ñeenti fan ci weeru décembre ati 2019 juróom-ñaari at Sénégal di wéy di jooy boroom daara ji te noppeeguñ ba tey Serigne Mouhamadul Mansour Sy ci turam dëgg gane si àdduna niki fukki fan ak juróom ci weeru août ati 1925 doom la ci Serigne Babacar Sy toogoon ci xilaafa gi niki ati 1997 yemook fukki fan ak ñeent ci weeru septembre gannaaw ba fi Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh làkko waajuram bu jigéen jigéen di soxna Astu Sekk moom Serigne Mansour Sy bawoo ci njabootu libu ci diwaanu Ndakaaru sët ci El Hadji si boroom daara ji ñu jàpp ne bokk na ci boroom xam-xam yi ñuy lim ci réew Sénégal mu doonoon koo xamante ne nii mën ka fam ree taxoon ñuy taataan ay kàddoom ak waxtu woo mënta doon bu dee waaraate kenn du gëmantu kenn du randu te kenn du ñibbi loolee yàlla bokkoon na ci lum ko mayoon kàddoom amoon solo lool moom Serigne Mouhamadul Mansour xamante ni ku munoon solu la dem ba ñu koy woowee boroom sañse bi mu doonoon koo xamante ni itamit dafa fulaalaloon lu jëm ci wàllu njàng ak tarbiyu tax ñu ko doon dippe itamit boroom daara ji ci wàllu koom moom Serigne sof si ab baykat bu mag la woon ndax sax ñu ngi xamle ne amoon na ay tool yu bëri ci réew Sénégal ñi ko gënoon jege di xamle ne lépp lu mbay mi jur daka daan dugal ci daara bi ngir ñu koy jox ñaka yellool ci Sénégal rawatina ca Tiwaawan ñuy fàttaliku kilifa gu tedd googulee di sëriñ Mansour Sy askan wi nag la ñu gën a jàpp ci moom ci baax baax bokk na ci ki daan dumbali néew di doole yi lu ko taalibe jox mu jox ko ko ka yellool bu weesoo loolu at gu jot da daan yóbbu lim bu takku ñu dem ziyaare ji Seydina Muhammad ca màkkatal mu karam loolee di ay seede yi nga xam ne bana ko ba tey ñu koy wax fu ne juróom-ñaari at ci ren moom sëriñ Mouhamadul Mansour Sy ñu koy fàttali des ci xolu jullit ñi rawatina màggal ci Tiwaawan fa mu tëdd rawatina ci Sénégal gi yépp ci fàttali mu ngi génn àdduna gannaaw ba mu làqee juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñaar ci réewum France. képp ku bëgg lu mu am ku bëgg barke ku bëgg a dolli ko. jërëjëf euh, soxna Aïcha Diakhaté mm. moom moo ñu defaloon reportage bu am solo boobu. Mm. Fatou Diouf fay mu mel ni tey li nga andi amatina solo Charles mi ngi naan ma du borom daara yi borom daara yi la ñuy wax <laughs> kenn du wax borom daara ji. donc merci beaucoup Charles borom daara yi. waaw merci ci rectification yooyu borom daara yi kon dañuy wax euh, Fabel euh, waaw muy lu am solo loo xamante ne Aïcha Diakhaté defal nañu ko ci Serigne Mansour Sy. 8 mhm. euh, décembre 2012 8 décembre 2019 déjà mu nekk sept ans ba mu gëddoo boobu ba léegi. Serigne Maodo Gueye. Euh, Maodo Diop Maodo Malick Diop Serigne Serigne Maodo Malick Imam Maodo Malick Diop. Ah, lan la ñu mën a wax euh, ci sëñ Mansour Sy ba léegi nii ñuy xamante ne daraja boobu di mandarga li nga xamante ne moom mooy taxawaayam bu am njëriñ bu mu def ci dundam. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyoowaat. daa mel ni Kumba Jaxate la xaw ma. Ah, li mu defal ci sëñ Mansour daanaka résumé na ko. Mm-hmm. Cheikh Seydou Mamadou Mansour di doomu Khalifa Babacar Sy doomu Seydil Hadji Malick Sy yaayam di soxna Astou Seck dëkk Mbaaw di Lébu et moom wax na ko léegi mu ngi gane àdduna le vingt cinq e le quinze août samedi sëñ Mansour le quinze août samedi la gane àdduna 1925 yaakaar naa noonu la. Mhm. Mhm. génn àdduna it samedi. Mhm. le 8 décembre. Euh, ci ci ci at ci weeri tubaab ak ati tubaab. bu dee ci weeri wolof nag. samedi la gànn àdduna ñaar fukki fan ñeent ci bisu euh, weeru tamxarit. faatuwaat samedi ñaar fukki fan ñeent ci weeru tamxarit. juróom ñeent fukki at képp. yu tegul benn bis manquéwul benn bis moom la dund ci weeri ci weeri ate wolof wala ate wala weeri wolof nga naan gàmmu rakk ci gàmmu rakkaat ji gàmmu boo ko seetee juróom fukki atam yi tegul bis manquéwul bis ndax samedi ñaar fan ak ñeent tam xarit ci la gane faatuwaat samedi ñaar fukk fan ñeent tam xarit waaw bu dee ci ate tubaab nag le 15 août 1925. Euh, euh, faatu le le douze. Euh, le le douze décembre. le douze. le huit décembre le huit décembre. 2012 2012. muy juróom ñetti fukki at ak juróom ñaar ndax at yee ñoo gën a màgg. gën a bari. ñoo gën a gudd ndax ati Samsiya la ak ati Xamariya. waaw moom mooy Cheikh Sidi Mamadou Mansour. mu nekkoon nit koo xam ne nag ku neexoon a nekkal la. ndax lan ci xam-xamam ndax lan ci yaram ndax lan ci niteem ndax la xam ci xam am xam gu mu xam nit ak xam gu mu xam boppam ak ci sañ-sañam léeg-léeg mooy tooñ ñu bari na luy xew ci réew yi bu sëñ Mansour doon dund du xew ndax xam-xam ba mayoon na ko am am ba mayoon na ko baatinam mayoon na ko wilaayaam mayoon na ko man mii moom mooma yóbbu màkk bi mu nu yóbbu màkk juróom benn fukki nit la noo juróom ñun ñëpp moo nu paasal de wisal nu kenn ku nekk mu waat la joxaat la fanweeri junni cent cinquante mille bàyyi ko sa kër. ma ne ko man lu may koy doyee cent cinquante mille man ci biir kër gi laa ne sama soxna. sama soxna sa soxnaa ko yor muy soxna maam xaar Sarr. yaay Seydi Moustapha Sy Jamil mii ma yabal fii waaw. kon ndékki dong laay def sama biir néeg maak sama soxna booba benn soxna laa yor. Mm. amagu sama kër beraguma sama kër. ndékk ca ndékki li di passé téeméeri juróom-ñaar fukk xaw ma ñaar téeméer mu ne waaye doomu raam ni ma ko defee léegi ñëpp laa la koy defal <laughs> waaw mm-hmm. ku mënoon a dimbilee. Mm-hmm. sëñ Mansour jàngale na fanweeri at. Mm. ak juróom. Mm-hmm. yoo xam ne dañuy tegale ndékkeem. ndax day xëy wiitee rek dem daara ja mhm. dañuy tegale ndékki li mhm. day jàngale ba ndékki li ñëw mun a tegal foofu mu continuer jàngale ba añ bi ñëw mun a tegal foofu di continuer jàngale bañu ne ko ah reer dee nga jot fu ñuy jullee rek delluwaat nañ ci njàng mi dañuy tegale añ bi reer ndékki li ah, li añ bi reer bi dem tàngal ñu taalibe yi door ko bokk ak moom ba muy fanweer at ak juróom moo tax ñaan ko boroom daara ji borom daara ji ñu nañ ko wax borom daara yi ndax ku mu jàngal samp nga daara moom Cheikh Seydi Mamadou Mansour looloo tax mu indi jam yooy ñaan ko borom daara yi muy Cheikh Seydi Mamadou Mansour mu toog fi nag ba am juróom ñaar fukki at ñaar ma maamam baayam alaaji Abdou toog fi 40 ans woon na ko nag yaay nekk xalifa bi te wanu waxu ko nag mageel da ko ni inna al xilaafata qad atatka mutiatan min duni ma talabin min arrahmani xilaaf ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane gu Sidi Hadji Malick ak gu Serigne Babacar Sy day dikkal na la ndax yàlla keroog bu ko àlla jëb di firi wayu muy bi Serigne Moustapha Sy bu taaw sëñ Babacar génnee àdduna bu mu génnee àdduna fii ñu rob ko fii ci Ndakaaru ci Faas keroog la way way way dundaat naa moom ñeenti at bokkut ak sax way nga xam ne mooy testament bi waaw ni ko yàlla sànni na law saan te saanu yàlla moytu du teemu dal la pirim mag la ni ko si yaa ngi làqatu ñu ko làqatu mu ne waaw mu ne ko toog innal xilaafata xilaafa gi de xat atat ka dikkal na la mu tee atan fekk na ngay toppee nekk nit ku yaru topp say mag topp say baay xëccoo woo yóotu da nga ni tekk ni dégg ba xilaafa gi ñëw. mu nekk ci xilaafa bi imaam Maodo Malick Diop. Ah, ah. ci atum 1997. ba ci atum. ba 1997 da nekk bi ba ci 2012. waaw. muy fukki at ak juróom muy fukki at ak juróom waaw mu ne ko nag xilaafa gaa ngi ñii mhm. xilaafa gi rek dikkal na la mu ti attan nag fekk nag nga jaar fi nga war a jaar mhm. topp ñi nga war a topp ba mu jot nga jot ci waaw ndax mu ne ko loolay mën a ndax wala xat katab wala xat katab euh, euh, wala xat katab naa fi zaburi min baadi dikrin ana al arda yarisuha ibadiya saalihun saalihuna yàlla ni na li ma bind ca sabóor sabóor nag bu ñu neewee jàpp nañu ni sabóor sax am na téere yi ndax téere yi ñeent la yu yu gën a siiwi alquran sabóor tawrit injil zabóor alquran mooy sunu téere mm. injil mooy euh, téere yonte yàlla Aïssa euh, Tawrit muy téere yonti yàlla Moosa Zaboor muy téere yont yàlla Daawuda waaye nag Zaboor it dina dikk nag firiwaat beneen téere Zaboor waaw ndax waxuñu euh, luxo la ci seen luxo ñoom ndax du arab yàlla nee na nag bindi naa ci samay dogal moo xam alquran la moo xam Zaboor la anal arda tiitar muy patrimoine foofu arda jooju du ñu ko firee alxuraan du ñu ko firee suuf si anal arda patrimoine moo tax ku la gën a góor góorgóorlu ci famille rek la nekk ca famille ba bu bu bu mu jéem ci si loxoom la nu koy teg te it yàlla bu bëggee famille ba gën a dund day gën a day mu jël kooka wala mu guddal fanaan mu ne ko anal arda naka patrimoine du mooy ma de waaw waaw yarisuha dana ko donn ibaadiya sama jaami man yàlla asaalihoona yu góor góorgóorlu ya sëñ Mansour loolu la fekk ko moo tax fu mu euh, fu mu dëkk def na fa ja jàkka au vieux juma ba def fa juma benn ba ba def école. Mm-hmm. barke de bu benn waaye def ma musalaay ni ma sëñ Mansour dafa bëgg suuf ma ne ko musta yàqu suuf ndax fu mu dëkk def na fa jàkka def fa juma def fa tool. Mm-hmm. ba ci euh, fii di Almadi am na fi lu quelque lu bari ci hectare jumaa jëm fa def. jëm fa def bu nu ko doon awiré bu fekkoon ne bëgg suuf dong la da koo bëgg a jaamoo yàlla demal golf këram gee moo fa gën jëkkër rëy moo fa gën jëkkër rëy tabax kër kër gu toll noonu teere ba nu ko mayoon ñu def xale yi dafa football ñu yëkkati ko may ko sëñ Mansour da ne ah, comme que jox nañ ma ko xale yi daan ko football naa ko def muy juma waaw ñaari juma xam naa ko yu mu ko samp ci biir Ndakaaru bii nga almadi gii bii nga nekk fële ca golf moom Cheikh Seydi Mamadou mu nekkoon it béykat bu rëy béykat bu rëy rëy boo demee mbooro la mu fa am ëpp na euh, cent hectares waaw nga dem fii ci Pout ñu naan ko manko la dama fay mujj xam la ak hectares ya mu toll mi ngi nekk deux cent soixante dix hectares ci ginnaaw bi dolli waat nañ ci mhm. waaw oh, mhm. muy manko ah. waaw mhm. waaw nga dem fu ñuy wax jàmba gën ah. nga dem fu ñuy wax eh, eh, jogo nga dem fu ñuy wax eh, bari na bari na et cetera et cetera. Ah. waaw bu ñu fàttalikoo sëñ ci ay waxtaanam la ñuy fàttaliku saa su ne. waaw muy waxtaan yu am njëriñ waaye da doo àndal humour mën nañoo wax ne humour en quelque sorte day waxtaan. mais da nga si dana tooñaale. waaye tamit day am njàngale. waaw mm-hmm. moom jàngale rek la xam. Mm-hmm. ku mos a toog ci moom rek. Mm-hmm. moo xam nga yor téere moo xam yoroo téere dina la jàngal. waaw ndax xamul lu may jàngal bu xasee toog. moo doo dégg sëñ Mansour danaa toog naan man. musuma tooñ ah yëguma ko boog musuma fayu. ba baax Ablaye Mbengue mu ne ko mu ne ko ne ko euh, sëriñ la wax mu ne du ma tooñ du ma fayu mu ne ko lu tax mu ne man jàngale laa xam bi ko ñaareel kuy tooñ doo mucc kuy fayu doo noppalu loolu la daa wax du ma tooñ ñu ne ko tax mu ne li ma yàlla defal lay muñee liñ ma def lu ma waaye def rek muñ naa ko ndax li may su ma xoolee li ma yàlla def rek mu réer loola réer mm-hmm. muy jikko bu rafet mm-hmm. mu nekkoon ko tabe wax naa la léegi juróomi. Mhm. te loolu ñun suñu génération la yóbbu noonu màkk. ban année la ñu ah, ban année la euh, année deux mille. deux mille mhm. man ci laa ci la ma yóbbu màkk. Mhm. waaw. keroog euh, bi ñuy dem juróom benn fukki nit la ñu juróom. kenn ku ne ba mu la paasee les deux huit da laa woowaat. joxaat la cent cinquante mille ni la bàkko ci kër gi man ne ges benn doom bu ñu wax Moustapha Sy xombal ni ko waaw Moustapha nun dinañ fa am un mois man mu ne ma lu tax ma ne ko sëñ bi natt naa li nu fay am ndax bis bu dee junni la waaye loolu loolu nu fa am waaw loolu dab fi la yem bi koy ñaareel toog naa di ko jottilil ca xombal eh, benn bambara bambara la rek ku fi bambara nag ma baal saane <laughs> <laughs> <laughs> ñëw ni ko man malien laa fii daa fii doon liggéey ci semaine de feeru Sénégal dëkkuma fi waaye nag càggan naa ba awma kër Sénégal awma ko Mali te it retraité naa te semaine de fer bi wóoluwuma ko la mu waxoon nag am na semaine de fer xam xaw naa kafin xaw naa feebar mhm. bu dëggam feebarul waaw waaw <laughs> nag damay ñibbi Mali mhm. an fokk dinaa ñibbi te bu ma demee xaw nu ma fay dëkke ndax xam na am nañ ma fa xam waaye ñoo fa xamit Sénégal ni nu mën a terale nit ak ni nu mën a bàyyee nit si ni nu mën a njaboot mën a bàyyee nit kilifaam nun xamuñu ko fii nag laa gën a xam te yow dégg naa kuy dimbalee nga mm-hmm. keroog dafa duñu gees rek maa ngi taxaw di ko jottali day rii toog mu ne gees ni ana Moussa Diop ñu ne ñu ne benn maçon la bu ñu ne ñibbi na kees mu ne ana Tamsir Mbodj mu ne mu nañ ma leen waal ñu ñëw mu leen am naa benn kër ca Thiès nañ ma ko mayal sama waa ji daal di woon nag ku ñu wax Maxtaar sa Ibrahima Sam Maxtaar Sàmm xam ne boroom alal la woon lool lool lool sëñ sore ko daan ñaanal te di kilifaam mu ne ko jàppale ko ci kër gi ñeenti weer lañ ci am mu tabaxal ko kër pante ñu naan ko tudde ko pante américain moo ko may pàkk ba defal ko ciment ba wut ko ko ko tabaxal def na ko xombal ci ci biir xombal benn jigéen boo xam ni jëkkëram bu bari woon alal la moom ba dem ci li ñuy wax banque yi banque yi nangu këram ndaw si shérif la euh, ñaareel bi ñu ñëw nangu kër ga génne leen daa ñëw ci ëtt bi rek yuuxu mu woo soxna maam xaar yaay Seydi Jamil ne ko booleel ma ko diw mu wutal ma fu mu ma ko luyeel dinaa ko may kër waaw jëlee wutee benn kër eh, eh, woo woo jëkkër jëkkër jë jëkkër jë la woo booy dugg xombal su ma neexoon tudd tur ba woo Moustapha Sy ñu jox mu may ko pàkk ba woo maçon yi nekk ne xom euh, euh, euh, Thiès. Mhm. ak ci dëkk bi ni dem leen ngeen tracé kër gi tabaxal ko tabaxal nañ ko ci at mi déwul ca kooku sax taalibi Ahmadou Bamba wa mhm. bu ñu waxee mu ne man maay sëtum ñëpp ndax Maaram Mbàkke eh, moo jur mooy maam Seydi Hadji Malick di maam borom loolu di wane tabe sëñ daara ji waaye tamit yàlla mayoon na ko leneen ci wàllu xam nu ñu koy olof ci wàllu baatin waaw ñaan nee nañ dafa amoon waaw mayoon na ko waaw sëñ sëñ Mansour eh, sëñ Mansour dafa yoro waaw waaw to eh, lu foofu nag ngi ma fi yëngal mm-hmm. ñu ngi may dégg mm-hmm. am na du ma tudd am na benn ministre léegi nag du ministre waaye mi ngi ci gouvernement bi mm-hmm. catholique la woon keroog bi muy eh, tuub sëñ Mansour sëñ Mansour da ko eh, tuubal ba pare ni ko yow nag doo bari njaboot benn doom nga yam te Mansour si lay tudd xale baa nga jull tey ma nga Canada ci fukki atam ak juróom matu ko ci la am eh, bac bac boobu sax dañu waxoon desi ah, ko xaw ma dañ xaw ma desi ko nangu waaye nag moo wax Ablaye ni ko kii nag ni mu amee bac nag du ca xamal ni Mansour si la tudd nag sama mbir feeñ ci moom waaw su ma neexoon tudd tur bi am na ku nekk Louga Mansour Fall la tudd dafay tàggatoo ñëw ci di di ñëw Tiwaawan takk jabaram ay at amuñu soxna amuñu doom ba bu déparé di ñëw ni ko maa ngi dem taar mu tibb soo def ko ci musuwaar ëmb ko ni ko boo demee sëñ Mansour si dégg naa lu mu ñaan mu nangu kooku dugg ci laboratoire sëñ Mansour fii bantere téere bi yu di wax bibliothèque laboratoire la ko tudde waaw waaw boo fa duggee rek mu ne agsi ga ci laboratoire bi loo bëgg waxal kooku dugg waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba génn dem fàttali ko soxna soxoon hmm. dama ko ñaare bi ñuy dem nag ba yàgg bay toll ci buntu kër bi làmb poosam daj bi génn si Moussa eh dellu si na suñu sëñ bi ni ko ah, baal ma de sëñ bi ah, laa yóbbante woon de tout yow nga toppatoo sa affaire rek euh, mu ne mu ne ko la mu ne ko sama soxna daal nee na a ñaanal ko fii xaw ma nag moo jigéen ñi dina bari affaire sëñ bi jimi rëdd ci rëdd ëf ni ko boo demee na ci sotti ndox waaye bu mu lekk suuf si lekk suuf dafa araam na mus ca ndox ma waaw muy dem mu ne ko boo demee bu demee ne nag ma ko tuddee xale bi man suur si lay tudd wallahi man suur see nga ne ci ci ci Louga si lay tudd li mu ci def kenn xamul lu mu toll bëri na parce que ñu doon def examen yu bëri ay bigam bigam yi bokk naa bigam yi biig moom waaw dëgg maa ne am na ci koo xam ni ñi mawuma koo tudd <laughs> ndax kooku da bu bu gën tëree ci réew bi du ma ko tudd mm-hmm. moo fekk maa ko fekkee sëñ Mansour di tabax këram giir ci jëppal mm-hmm. radiyallahu taala anhu mm-hmm. waaw soxnaam booba mi ngi école mi ngi université wala am na daal fa mu ne mu ànd ak ay moromi moromi jigéenam ñëw ci ci ko jàkk xool sëñ bi toog ci kawam ne eh xale yi taalal leen kooko ne ñokket ni ko man dama lu waay bëgg nag na ko wax lu waay bëgg kooko ne taxaw ne ko man jëkkër ju baax laa bëgg ju baax ju yiw sëñ bi ne ko bis nga mu ñaan ba pare kooka ba mu faloo keroog bi mu jëkkee seet si sëñ Mansour si waxtaan ba jóg di dem ba sëñ Abdou Mbaye Sy ngi toog Serigne man xalifa bii ni ngi toog sëñ Abdou ngi toog wax day am seede ko Serigne bi président laay wax sax da ko ne sëñ bi sama soxnaa ma yóbbante woon ci yow ne na ñaan nga nangu na moo la ñaan la woon jëkkër ju baax te baa ngi ni may jëkkëram moo ma ko wax mm-hmm. kon nag loolu seedas mbay dàgg waaw waaw yéen waaw waaw. am na solo. ah ay qualité yoo xamante ne mën nañ ko tirer ci sëñ Mansour si borom daara yi. waaw xamante ne dina bokk ci luy defaraat société sénégalaise bi. waaw ay mërsëg yu fi am ak yeneen ak yeneen. waaw boo gisee. Mhm. maa ko bëggoon indi sax demoon naa ba da ko ndax barki démb laay xool ci samay kii ba gis ko ci. Mhm. muy bi nu amee indépendant taalif bi mu ci def. Mhm. ma ne eh, sëñ bi de lii xew jamono jiyee taxoon waaw. lii tax mu mu taalifoon taalif bii mhm. ma nga cee wax naan mhm. Sénégal am ngeen euh, indépendant ci ci ci woyof xeexu leen bëriwu leen mhm. da def rek négocier ko am ko waaw muy 1960 mu def ci taalif daane nag bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo gàdd ay yet ba ñuy indépendant tubaab yi def bàyyi nañu fay ay bee ñu xeex ba yàq bee ya xuloo ba yàq bee ya di xëccoo ba yàq la la fa tubaab yi defoon te mënatuñoo dara bu leen ko def waaw ma nga ceex loolu kon nag loolu jamono jee taxoon tubaarakallaahu nit la woon koo xam ne ko bari jàmm la déggoo li mu wax musta nee na musuma tooñ musuma fayu ndax bëgg jàmm kenn musta dégg lu sëñ mun sa wax lu ñaaw kenn du kenn kenn du kenn boo waxee mu ne eh, eh, eh, li ñuy wax comme que nekkul du mën a xari du duñu ko gis du mën a xari te li ma yàlla defal lay muñee li ñu ma def ndax li ma yàlla defal yëg naa ni ma defee lu mu bari bari bari su may xoolee li ma yàlla defal rek ndax ku bëgg a agsi su ma agsi la wala mu bëgg a mel ni man la te am na ñoo xam ne bëgg du ma dellu mu ku ma dellu ñoom te yaakaar naa duñu agsi fii ma fii ma agsi mhm. ma toll muy Cheikh Seydi Mamadou Mansour Sy muy nit ku baax di nit ku yiw di nit koo xam ne tabaarakallaahu eh, eh, toog naa di waxtaan eh, di ko jottali benn waay ñëw moom Cheikh Seydi Mamadou Mansour ni ko sa turandoo da koo tuddee doom ni ko dañu koo tëj kaso mu ne ko lu mu def déglu fa <laughs> lu mu def wa bu ma nëbbu mu wax a wax ba pare mu ne gees ni ko ku ko tëj ñu ni diw mu ne diw de maa ko daal maa ko ñaanal fii sama taalibe la pourquoi muy tëj sama turandoo la waxaate xaw ma xamatuma ko moom daan ci booba téléphone portable yi amul. Mm-hmm. waaye na am na per téléphone boo xam ne dangay toog ci salle bi ñu teggi ko fa ñu koy taaj ci biir néeg ba di ko chargé. Mm-hmm. waaw. ca ndey ja xam nga am na nekk ci palaat nit ko la la daa yor ci saal bi mu mm. ne wool ma diw ku yaa ngi ni moom ko mun ko mu ne ko fekk ma fii maa ngi nii ba naar jot ñu ne onze heures et demi mu ne ko eh, na nga jullee si tisbaar ak man booba embouteillage yi bëriwul nii mm-hmm. ñu toog ba julli tisbaar ba ci kanam ba si yu dugg yeneen daayira ñëw quatre heures e quatre heures et waa ji ne dareet mu ne woo leen ma ah, papa yi Mansour mi ñu tëj doom ñu woo ko mu ñëw mu ne ko nag boo ñëw indaale sama turandoo mu ñëw ñu toog ma ni yow kii yaa ko tëj yow maa la ñaanal ci kii sama turandoo la ah mu ne daa daanga mu ne ko yëpp jéggal ko tey yaay yaay président euh, directeur général dégg naa sa directeur moo ko tëj waaye nag léegi tijji ko ci li maa bëgg léegi nga def nga embauché ko léegi ki ñu tëjoon kaso tëj nañu ko embauché ko mu ne gees baayam ne ko ne mu mi ma soloon bi may recevoir ni ci ci midi leen ko ñu sol ko mu yëkkatil cent mille francs def ci poosam ne gars yi dimbali leen ma ci sa saabo bi te un million laa bëgg ñu ne ko jox ba mu mat un million mu def ko ci sake mu ne ko ndax dem nga màkka mu ne ko déedéet mu ne ko bind ma yóbbu ko màkka ren léegi am na fi yoonu màkka am na fi mu mu mus mën a jënd mu mus sa mën a jënd am na fi dépense un million tijji nañu doomam embauché nañu ko waaw moom nga daa ñëw taalal koy loxo rek mun la gëmbal wala nga ñëw mu na mujjug dundam dootul ñaan da nga ñëw rek mu dóor la xet ne doomu raam de man saa gas rek waaw loola nag man gisatuma ci kenn xëy na nag mi ngi ñëw waaw waaw da ngay da ngay ñëw rek mun la doomu raam demal sa aajo faj waaw waaw bu ko defee waaw yan yan yan relation la amoon ak yeneen euh, kër kilifa diine ñëpp ñëpp am na ci loo xam ne sax dee ko wax ndax am ñoo xam ni da leen a fekk situation xam ni ah moo leen delloosi ndax lépp la sëñ Mansour ni mu la daa ñaanale ngay am alal mu la ñaanal ngay wér noonu la daa faja dof dof da nga da nga daa ñëw rek mu rek nga sikkar ba ràggatiku mu yóbbu la fa ne nga ñëw rek mu dóor la xët ci bopp ni loo doon sikkar nga daan yaa yaa yaa jay sa sa sa sa kii yaa eh, saameem yi xam na yooyu moom <laughs> eh, eh, waaw yaa am xawi yu nekk ja la ma xanaa jaxa dina kii kenn xamul nga waaw <laughs> tënk yooyu. waaw ah, ah ak jinne yi. mu rëg rëg la ah yow doomu aaraam. lii da ko war a sikar lii ba ka la ko jox da koy isee ci yow loolu dégg naa ko ci moom ba tàyyi waaw mm. mun la lii ka la ko jox da koy isee ci yow bu baaxoon mu liggéey ko bi ko defee nag dootu ko ñemee laal mm. loolu ci moom laa ko mos a gisee mm. ba mu demee te gisatuma kon xëy na ñoom saane ñoom ñii waaw waaw ah, dégg nga saane ne loolu wér dañuy am ay secret yoo xam ne duñ ko ñemee liggéey waaw ah. léegi nag comme xamuñu li muy def dañu xool koo xam ne ku ñemee wér la mm-hmm. ñu jox ko ko di ko essayé di ko xool nag te duñ ko jox lépp nag loolu ci gën a garaaw dañuy jox tuuti témbun mi di ko xool. su amee ay jafe-jafe rek ñu xam ne lii matul ñu baax. waaw bu ñu gisee mu commencé am changement tuuti rek ñu matal commencé di ko liggéey li mu ne lu am la lu wér la. Hmm. moom yàlla la ko dimbali woon. ndax bu dee xam-xam bi mat na. macha allah bu dee taar bi gis ngeen ko. Hmm. bu dee sañse di mat na bu dee nag eh, eh, eh, sañse ak ak ak sañ bokkul. Hmm. waaw moom yàlla ko defaloon sañ-sañ. lu mu bëgg insha allahu insha allahu rek moom man man nañ sëñ Mansour daal lu mu bëgg insha allahu yàlla dina ko def loolu nag mu ko yàlla defal la coobare yàlla la waaw moo ko defal waaw waaw di déggee. ñu ñëwee day wax ne ah xaar ma dem ci Serigne Mansour mu branché ma. waaw maanaam branchement bi mooy ñaan gi. mooy ñaan xamal si da ngay mu branché la. waaw daa mujjoon daa mu ne man prise laa yor. waaw <laughs> boo ñëwee ma branché la bu ma gisul lu ma xam ma déparé ndax dama daa jóge daa ñëw ma la dóoral bal bal nag bu ñu ko dóoree xam nga mënatoo koo. mënatoo koo jëlee waaw léegi nag day organisé naa bi sama prise sama wet. sama la branché mm-hmm. mu dox nga dem fàttam ma. waaw ma seet nga xam ne yow mii moo doomu a ko ma débranché waaw ma ma xëcc loolu daa mujj di wax. ndeysaan ànd nanu benn kilifa gu bari alal. Mm. du ma tudd tur ba. waaw déedéet astaxfirullah keroog demuma. waaye dañoo bàyyi Pikine Ablaye Mbengue la àndal. Mm. ba mu ñëwee la koy intili. Mm. mu dem kooku di ngénte ni de ni sëñ bi ah man de diw xaw ma nu ma koy def. dëggal ma dem sagal ko ci kër ci ngénteem li rek. naka mun ne dara ci kër gi fekk ko mu kër gi baraak. lii di lang fii lii di lang mu ne ko eh sëñ bi manoon kaa yebal Ablaye Mbengue mii rek mu ñëw mu ne ko dama lay defar si dama lay defar si su muy daal su muy su muy daalul di jooram bii hm? waaw di këdda naa ko deel wàññi di dóor di wàññi waaye mu ne ko sëñ bi loo def ni ko boo waxul woon fu ma yem ak këdda di nga ko am état ci Sénégal am na ko it waaw fu ñu tudd ci kooka ci Sénégal tudd waaw ndax baatinam kii yemul woon ci xam-xam dong moo tax alaaji Abdu bi mu koy joxe laa fekk da ko ni inna al inna al qasidata haadihi la hadiyatun min faydi cheikhi ahmada tidiane cheikh sidi ahmad tidiane moo mën a rëkkum doy ni moom sëñ Mansour fii toog te ba ko alaaji Abdu wax fa mu jëm la gën a ragal fi mu ngoon ginnaaw ndax alxames la ko wax àjjuma samedi dimanche mu génn àdduna waaw def baatin yooyu mi ngi am ba léegi moom day man day xëy na boo demee ci doomam ñuy ba xam. waaw doom yi daal ah, ku fi jógee sa doom lay doon. <laughs> waaw sëñ Habib maa ngi lay nuyu bu baax si maa ngi ah, di di nuyu nag xalifaam. waaw mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy mooy xalifaam di ko yaru di ko dal. Ah, waaw waaw. Ah, kii. am na eh, kii daa na daa waaye jàmbaar la. macha allah sëñ Mansour ni mu toll ko wuutu nit la tudd. Mm. jàmbaar nga. Mm. waaw di nuyu Jamil mi ci mi ci topp. Mm. tubaarakallaahu léegi la ma woo fii. waaw di leen nuyu yéen ñëpp. moom maa ngi koy tubaarakallaahu Jamil si mi fii ci <laughs> eh, këram gi ci ci Tamaro. tubaarakallaahu yal na yàlla bàyyi ko fi bàyyi fi njaboot gi. amiin tubaarakallaahu Serigne Mansour tubaarakallaahu mm-hmm. eh, ni mu mel. Mm-hmm. bi muy ubbi ji jumaa yi jumaa yi Casamance xam ne Ziguinchor mhm. xaw ma Ziguinchor nga dëkkam déet man fa laa dëkk mooy jumaa jooju nga xam ne dañ ko tëj quarante ans ñëpp waaw mu noonu mm. joolaa yi ni ñooy jiitu mhm. soose yi ni ñooy jiite mhm. ba mujj ñuy ràpp jumaa ji ca jamonoy Senghor ba tey sëñ Mansour a xëy si di ko ubbi benn ab kilifa gu mag ne ko doo ko ubbi ndax jumaa jooju lañ fa def ci li nga wax ci wàllu mystique mu ne eh doomu aaraam maa man mystique dañ maa mënal dara <laughs> waaw moo ñëw ubbi jumaa ja samp ñaari imaam yi imaam Cissé ak imaam ba ca des maane la mhm. tubaarakala solal leen ay yére waaw bis bu njëkk ba ba ba ñu ñëwee ba ñu defee ñu koy ba ñu ubbi mu daal di woo Serif. Euh, Aydara ah, ah, waaw Serif euh, Alioune Aydara la xaw ma. Mhm. ni ko kaay jiite. yow mhm. ndax rasulullah sama maam. ndax Serif yoonu sa jur sa mu ni jumaa ji ajuma ah, jotati nag na kii jiite kii jiite mm-hmm. ba léegi ma nga ci di jàmm quarante ans um nañu ko jumaa jooju mm-hmm. waaw ci Sigansor waaw waaw mm-hmm. Serigne Mansour day maye bii maak ba benn catholique toog comme ñoom ñëpp daan ñëw mu ne eh, kee doomaaraam jee toog xanaa bëgg bëgguta de màkk yow dooma bis bi ne nga ñëw fi mu ne ko demal nu bind la yoonu màkk mun ne ko papa man du ma Serigne xam nga ñoom loolu la jox man man bokkuma ci diine ji catholique laa mu ne ko def am ma may la boog million man ku ñëw sama barab boo fi jógee da ngay dégg looloo jàpp waa bu dee dugg ci diina ji li bàyyi naa fépp maa ngi ñëw fii kooku li mu liggéey tabarakallahu mm. yàlla na yàlla doon leer amiin amiin papa jërëjëf macha allah Fatou mel ni liñ fi waaw xam nga wàllu taalifam nag xam nga ma wax ci benn ñaari minute ndax téere bu Seydil Hadji Malick liggéey def na ko tasyil waaw tas yi la xam nga yéen ngeen ko xam mm-hmm. maanaam téere bi bu doon fukki way fukki tomb tomb mooy way de mm-hmm. tomb bu ne ci diggante ba dafa rafaan fa way fala def na ko fala budda te loolu xam-xama ko man mm-hmm. wax bi te wax ba du dëppoo bu dee def na ko bu dee astawdiullahi rabbi kaabatallahi def na ko xalifatu cheikh wal muxtaari yaa fi di mbër si yaay fajal diina ay daanante ñëpp la war sëriñ Babacar si la ko allah jab du way ba mu ko woyee ba mu yër ko xool way daa woo sëriñ Mansour ne ko tontal ma sa baay Abdou booba sëriñ Mansour ayatam bëriwul mhm. sëriñ Mansour dem xoo ko xalifatu cheikh wal muxtaari yaa fi di mbër si yaay fajal diina ay daanante ñëpp la war sëriñ Mansour ñëw dem jël way wa daa da daa da koy dëppale ni jasaaka rabbuka yaa abdal asiisi abar ci woy wuri wi nga woy sëriñ bu mag bi di mbër lii di arab lii di waraf xat jitanaa bi qasidatin mubayinatin melaw xalifatu mbay yuy xeem na taaru dorar nadbun samimun karimun naasiun wariun ku sëb sëriñ melowoo yii melo samta la war lillahi darru humaamin naasikin fatinin kii jàpp tën saw ko leer mbooloo ma xëy di ko wër xam ngeen tënam mooy ku xamul dara nga def ci moom loo xam ne ku mooy man man ab sàmm woon du ma woon dara sàmm bi sàmm ay nag ak i xar ak i béy ma xëyee xëy yóbbu ma sëñ Mansour sam dimanche altine talaata àllarba alxames ajjuma muy waxtaan kaay jottali ma waa ku jël dalute jàng nga di ko jottiloo waaw li ma njëkk a digg ci moom ca maa ngi taxaw nekk xale su tuuti ñu dëpp paam ca tool yeen ma taxaw ci di ko jottali mbooloo mi wër ñu naan kii moo kook xalaat bi di jottali dëkk na sëñ Mansour yi wane xar baa xam ci man daal di si daal di Maodo li ñu ma defal xale bi eh waxal dur sama mbagg mi waxal li ñu ma defal daari hamdan liman jaala alquluba tataraa walaw kanat al ajsaamu tatanaa wa jaala zawahira wa damaira bayna al ahibati alqudsaniya tahatta na ko mu ko wax rek ma wax ko ah, mooy wax ci sama wala mañ ba ma fa jógee xamatuma dara <laughs> waaw daf maa defoon outil outil di ma wax loo rek waaw man li ma xam jànguma ko ci moom laa ko jële waaw kookoy sa Musamba ak Alassane Birame ak maam Ngoone Ndoye bilaay bu gaynde yëndoo dég sa lu yëndoo mar ah. kenn sax xam-xam ak wilaaya ak baatin ak taar ak sañ-sañ ak sañse ah ak alal ak nangoo joxe waaw allah jab ko ko ni bil ilmi wa taalimi fuqtuma xayrakum nee na ci xam-xam ak xamle fanweer fi mu toll ci dara damay wax ni la ko la Seydil Hadji Malick ba ci moom boo ko def sax nañ la ko testé amul benn doomu Maodo wula sëtu Maodo bu jàngale li sëñ Mansour jàngale ndax am fanweer at toog ci daara di jàngale moom doo ko def ak juróom man nga am rek sa daara nag ut ñu la wala nga nekk ñëw superviser daara ji di doomu Maodo uuf yéen ngay Maodo waaye toog ni mu toogee fanweer at ak juróom nga di ko jàngale ñuy tegale sa ndékki ak sa añ ak sa reer ngay jàngale fànn yëpp du fiq du naxw du mantiq du balaaxa du usul du badia ah, du siira moonu tafsiral alquran bi mu nuy firi alquran daara ji bu ñuy jàng bay war a ñaan sëriñ man so day woo njaa sa géy mu ñëw bëkk néegam la mhm. nag mu déeyoo moom mu ne ko jëlal eh, eh, fii deux cent mille francs ou bien nu nit ñi rek wala quatre cent mille nga dem wecciku def nga dem eh, teqale lem par junni par dix mille mhm. par quatre mille mhm. ndongo yi jàngale yi wi koo jox loxo rek mu am lu mu def ci loxo ñooñu daara day xumb de mm. ah. moo tax allah jab ko ne ko bil ilmi xam-xam mm. wa taalimi ak ak xamle ak jàngale fuqtum nga nga rawe xayrakum ku dul yow wa bil basli ak yulli alal wal ak di dépassé wal ihsaan nag boole koog ree buy joxe day ree mu ko jub mukk ni joxoon na ma démb moo tax mu sëgg mm. waaw daan wax naan joxeel joxeef la loo bëgg a bari la dee ko jox dana wax xale yi di leen joxe bu ngeen bëggee bëri yére di leen joxe yére bu ngeen bëggee bëri xaalis di leen joxe xaalis mm-hmm. moo tax doomam ji di di jëbit fi tubaarakallah ku ñëw mu faj sa aajo moo tax yàlla dina faj aajoom kaat mm-hmm. kaat bi ma war moo ma ko may ak yeneen ak yeneen mm-hmm. ñu di ko gërëm waaw waaw di sant doomam yëpp téye nañ ñu ah daal <laughs> yooyu kenn gënu laa gore papa <laughs> eh. jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu li ñuy fa wax yëpp euh, téere la li nga fi wax yëpp macha allah xam-xam la Fatou mu mel ni waxtu bi daf ñoo dab Pape waaye li nga fi indi tey moom macha allah. macha allah am na solo. am na solo trop waaw Fabel rek kontaan tamit <laughs> suñu invité. Ah, di imam Maodo Malick Diop. Ah, jóge ba Tiwaawoon vraiment. ñu ñuy waxtaanee sëñ Mansour Sy borom daara ji. jar na ko tamit wax li mu ci waxtaanee am na solo. macha allah ci tedd gi macha allah. di la jaajëfal bu baax rek. Fabel waaw kër gi yal na yàlla dolli leeram. te it ñi ko wuutu yal na leen yàlla dëgëral. Mhm. yal na nu mel ni Sidi Lamine. amiin yal na nu mel ni Sidi Lamine. ah ñu koo xam jooy na ko ko xamul jooy na ko. Mhm. ndax dafa dëggoon te asidqu fa huwa siinatul muriid. Mhm. aadana allahu min al maridi sama turando si jaaji maa di ko bind. ñu ne dëggu mooy taalu taaru taaru taali bi waaw. te ñun ñëpp ay taalibe lañu waaw yal nañu yàlla musal ci koo dëgguwul sëñ si lañu ne daa dëgg woon mm-hmm. farja farjawul yaraaxul woon mm-hmm. tabaarakallaa kon palaasam bii mm-hmm. ngeen ne fi yal na ko yàlla gën a jàpp yal na ko yàlla gën a yokk yal na yàlla gën a def sekkareem lu ci Sidi Lamine jublu woon ba ci seex doomam ji ko wuutu yal na ko yàlla aar tabaaraka mën na gëj naa fi ba fi waaja seen nekk kabiru seen ah, ah. waaw gis waaw ah, <laughs> baax a baax a baax Oustaz Kabir Fatou Diouf rendez-vous vendredi prochain incha allah ci beneen numéro bayukaay. ci beneen numéro bayukaay. daanu nga na ci morom. jaajëfal leen bu baax a baax mbokku téléspectateurs yi ànd ak ñun ak ñun euh, ci subaati léegi ci seen émission bu mag bi les Petit Déj waxtu wi ñuy euh, jeexale émission bi jot na sëkk ñu jëfal leen ci ànd beeg teew déglu bi euh, la voix des sans voix Walf TV la ñu wax jaajëfal Charles René Fall mi nekkoon ci côté régie bi ak jigéen ju man góor Ajaratu Penda Diallo Guèye ñi ngi leen di jaajëfal bu baax